kenn waxatul kenn lijjantul kenn ci la président Dibkor fay jóg nag taxaw ci biir askan bi ne lapp luy seen soxla dinaa ko faj lépp lu seen problème dinaa ko ànd ak yéen lépp lu ngeen bëgg ci séeréer si dinaa ko ànd ak yéen lépp lu ngeen bëgg ci Sénégal à travers le dinaa ànd ak yéen étudiants yi dinaa ànd ak yéen élèves yi dinaa ànd ak yéen professeurs yi dina ànd ak yéen enseignants yi dina ànd ak yéen les cultivateurs dina ànd ak yéen moom mii rek moo jël takk ndigam ànd ak ñëpp ci jamono bii mais ñëpp a toog kenn waxatul joomaay la ñuy dégg te joomaay day tukki rek joomaay moom voyager rek lay def waaye yow la ñu xam yow la ñu gis yow lañ fi nekkal ci naaj bi ci guddi bi ci taw muy bëccëg yow la ñu xam te nag faj nga askan bi faj nga yi jàpp na ñu gàcce nga la mën a président Dibkor ku la bëggul daa bëggul lu baax ku la bëggul daa bëggul Sénégal ku la bëggul daa bëggul social waye nak li ma di wax moy ki boko ko waxee nga ne Ousmane Tanor Dieng boo ko waxee mu reetaan ñu ne Abdou Diouf boko ko mu wax mu def mu ne ah Léopold Senghor le premier président du Sénégal l'homme qui était à la France hein qui est agressé en grammaire qui a vécu dans le monde def koo xam ne lañ kenn defu ci tubaab bi jëlaay moo yoo xam ne kenn xamu ko woon moo ko jàngal moo ko tette moo ko teg ci temps mu ànd ak Ousmane Tanor Dieng mu fekk baax fi nga xam ne mooy Fatick waaye tëcu leen ma kii waay ma ne bu leen soxor waay bu leen soxor kii moo fi ne merci ma gàttal nag damay wax politique s'il vous plaît dama ànd ak sama présidente kii jaral na ma ci waay wax day na ma merci beaucoup ma jox Madou Mbingane mu jël la parole ak Madou Mbingane sax merci waaw fogole citoro ndik rek yoqate mayu wala kaga fela mbayang lum e fafay wa fogame a mbara ay noox wala o fogole ine ngidma fop yakar fop e mbaasnoxa to mbaasanta xeɗano yaloxe fogata wasana in Okinu kiinu garna we na fo we ngareerna andu ke bugona xeɗano yaal oxe fiyanum paax ku kiina jeg kayit daw woda adoox adorten parce que hu wodna wodanel ku garna ci e wod me ke inde hu nda caate ka yakar ni ndiig ne andone ten roog fexe ke xeɗan ta deb bo jama deb ka andona ne xana barke de mayanga a newanga xeɗanu he a barke nin e fo lay fe koy wagate may parce que même oxe rena président dib korta njom taxut a garid njom mbidun xëja koy ku garna itam a jeg na ta wageena layit rek fo neewa ñakayo a kida ɗumel parce que koy kiino kiin o garanga bo meke yit xana jeg ka layoona parce que kaaga rek ɓiidu in meen to o kiinoxe itam a ɓiidanga teranga a wara layel parce que oxu ga'oona meeke rek mi de xeɗaama roog chaque jour mi to oxu reɗa meeke na adna xeɗa o ni'tel chaque parce que no barke a fogu kon fat i citirondang rek jërë ngeen jëf parce que yokkatee mayu diib koor nag fan lay feeti Mamadou Dionga lay na o kiin waagatee lay ka xupuna adama diib koor fooxum a eeta laye a gidmaam a yaakaarom nuun fo a cinjof fop xeɗaanu yaal oxe gidma nuun diib koor yit mi feeke na laya xëƴa pooge waare laaw parce que ceereer rek refanum fo Sénégal rek refanum o maak oxa o ndeɓonga o koor oxa o tooxa e o leŋ waage roog rek waagu diib koor naga gariida fo o neew doole um a yoonid fo madame um fo mboolem xu meeke yoonid fo den fo a moɗna tribune na vraiment o retnanga mbin diib koor xay o ande o kiino paax rek a refu mamadou leyan xeƴa doomi adama moteur nda andame diib koor ke te pareena fo sénégal mamadou ha tor baafi tan nda ala kurenanda sport jom ala hoyno ɓayoyle ten culture nuɗena yitam ala xeƴa kata yegerna nda kuta yegna xana fi ten ke andone ten wagu warun anderum fo fo wiine kon nak ke wagma ley ten refu ye adama diib koor a gidma fop a yakar fop e comme ne ta fodna koy ale waage leyit fop ne warma waago ley fop wa muñako leyit diib koor a janga fiya me un million cinq Omilong oh, cesa adama dib kore janga omilong oh, cesa adonin no bayof to ale koy ka na pa parce que kure na kam jomne ale a sañangan no buntu le sax a buntu ke metal tarokid kena lay to am yef ya kaga 1 million 500 tene jangu 1 adoni no bay promoteur tour adama ñew dan jaraka xuɓuna parce que fiya njom ka andoona yee ku rena fiyano njom xeɗan xaalis fene mu ta a soɓong lay mbayang a ah, mbayang lum ah. jarajef lay la voilà merci euh, vraiment man sama xol dafa sedd mais nag euh, amateur ke maxey gidma nuun to yaakaara nuun ndaxte olof Njaay dafa ne ñambaas yàqul xel vraiment kontaan naa ci yéen ni ngeen ma wuyusee ak tabaski bi nu mu gàttee ak nu mu xattee dafa fekk ne rek président Dibkor Faye waruñ jàpp lambam sax a une semaine de tabaski ko ne wara a ut ut khar ki ut lu wara ut mais yeen jaarama yeen amateur yi nga xamne ñew ngeen contane naa ci yeen ki nak ken mën tax mom bu jéxal ki moy ku barké dem bo ñay rek drapeau chef de l'État à région de fatik mu ko doomu soutenir région de fatik à drapeau chef de l'État ñep neena mom rek mo fa ñew te ken def ko te bëggul kenn waxu ko kii mooy ki nga xam ne fa tawul Tattaguine fa tawul Sénégal yëpp man damay wax am na ñu ne eh, duñ tuddee làmbu ñun sax day wax dëgg fay la dañ ñoo wax ne tuddee ñu làmbu ndax Dip Kor mi nekkul ku xamul làmbu de diib Kor table technique boo mayoon da nga arrêté combat bi quoi li may wax dafa am solo table technique eh, Malick Ngom maa la ñaan ngir yàlla ak yonante bi bariwul quoi nga arrêté combat yi ñu yëgali léegi lu ñu doon yëgali kontaan nañu suñu xol seddina monsieur Dib Koor Faye nekk nit ku baax nit koo xam ne boo demee këram nga xam ne nit ku baax la ànd ak jabar gis nga senegal ñu ngi rawante ci jabar ju baax bi ma nuyu docteur Birama Sène bi nga xam ne dañ doon ñëw fii Dib Koor amateur la kii amateur la dafa doon ñëw fii ci lambu a Ngor Don dunde dundal lambu te wul lambu ba yalla may ko teraanga bu mu am tay kon nak mala la ne gars dañu rawante ci jabar yi jabaram ci somba doo munu jaay nak sama yaay jonne la sant surtout ma di jon boo demee keram saa waay da ngay rus sa way ñun dofuñu nit ku la gis nañ ko buñ dugol ñaar yoon sa jeeg bi jaagar-jaagar yi am nañ ñu xoolee dootoo ñu fa gis man dama wax te yalla tax mais jabar ju baax nga yore damay gàttal wax ji kii laa koy wooyee monsieur Dibkor bala ma la gis ci internet maa la wooyee Senghor ndaam ji man maa la koy wooyee monsieur Dibkor Faye te doomu yaay seex yaa ki fi yaayam seex ñetti yoon ñaari yoon bariwu fi man du ma ay caaxaan yal na ñu la ba ci kanam ma fekk ko ba ñàkk koo fee fekke nit mën na ñam xaal mu xaw a naqari nga ñam xaal mu xaw a forox mais bii mooy xaal bu baax bi senegal kii monsieur Dibkor Faye xam ngeen ne monsieur Dibkor Faye bi fekkoon ne rek bi yey gaa sant naa ñëpp sant amateur mi ba yaakaaroon bi ay saa waay du ma wax xaru tabaski du ko am mais monsieur Dib kon kay defe na bés bi yëpp ci kaw ci kanam jeune socialiste nit nag boo demee ba xamatoo foo jëm dangay dellu fa nga jóge woon xam ngeen ne Sénégal yëpp socialiste lañu te affaire bi xat na ñu ngi dégg loo xam ne waruñ koo dégg di ko doxee xam ne waruñ koo doxee mais kii nii la mayer la mayer président Dib Kor tey bu ma nelawee damay tëddee njaaxa ñaay

waaye di nuyu it kii nga xamante ni tey moo organise lu toll nii woo ci amateur yi waaye woo ci xale yi nga xamante ni ñoom ñëpp ñi ngi bëgg lu ñu am di la jeunesse di les lutteurs ñi ngi leen di nuyu di nuyu it le monsieur Dibkor Diouf Faye mi nga xamante ni moom yitteem yëpp moy askan bi Dibkor bu ko neexoon mu yemale li mu am ci moom ak njabootam waaye Dibkor moo ne li ma am yéene naa ko bépp jeune boo xamante fan Sénégal nga am lu tollu nonu ci fànn bu mu mënti doon kon Dibko Diouf di Dibko Faye ñi ñaan nit xel leader leader wuñ la dara ludul nga assister sa askan kon ko Diouf am nañ ci yow am nañ ci yow yaakaar yàlla bu yaakaar boobu tas di nuyu it soxnaam mi mu àndal ak délégation mi nga xamante ni moom la àndal dib koor nee na mënu leen fay yàlla mi am fay yal na leen fay te deuxième édition bi yàlla nañ ko tëgg ba muy nekk centième édition ci barki Seydina Mohamed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 ànd ak yéen wax alhamdulilahi rabbil alamin ànd ak yéen wax alhamdulilahi rabbil alamin o fogole ngatna mene fop in way simna nuun a paax oxu refna no gonum fo simangolum Adama Diouf yow mi nga xamante ne yow it ak say mbokk ak say xarit ak sa structure yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen tàttagal bu baax a baax a baax a baax di wax ne ñi ngi début join kon yal na ñu yàlla dimbali ba lii nga xamante ne ñu ngi koy séentu muy hivernage yal nañu yàlla dimbali mu ñëw ak jàmm ba fépp foo xamee ndox doon na fa taasax yàlla dimbali ñu ba inondation du ci am yàlla may ñu ñu am production yu bëree bëri baax te mu ànd ak wér ak wér la fii nga xamante ne mooy Adrien Adrien Senghor ñu tuddee ko nag nit ku ko jar nit ku marqué histoire yal na képp koo xamante ne ñëw nga fi tey boo fi indi woon problème mu xar yal na la ko yàlla may nga indi woon fi problème mu ñaw yal na la ko yàlla may nga indi fi sax feebar yal na la ko yàlla saafaraal soxla boo bépp boo xamante ne doomu aadama indi na ko fi yal na ko ko yàlla fajal te soxla boobu dootu ko mës am ndax da koy el di motal chaque année. beneen bi moom mooy ñi ngi Grand Yoff ñëw fekk fi Adama Diouf ñëw Grand Yoff fekk fi Maam Koor Mbin Yaag ñëw Grand Yoff fekk fi Njaan ñëw Grand Yoff fekk fekk Souleymane di mool champion yëpp yi nga xamante ne fekk nañ leen fii ñu ngi leen di nuyu ki nga xamante ne moo woy làmb ji di mbayang ñu ngi koy nuyu moom it ñi mu ñu àndal kii nga xamante ne moom mooy Maodo ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax président bi nga xamante ne moom lañ fi fekk mu tatagal ñu dugal ñu ci làmb ji moom it ñu ngi koy nuyu li nga xamante ne moom moo ci des moom mooy ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor communication làmb ji muy ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy TV TV yi ci Lutte TV ci télévision bu mag boobu ba ci ñeneen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal nañu nekk royuwaayu àddina communication yi ñuy def pour promouvoir làmb yal na ko yàlla saxal yal na ko yàlla yokk bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax gars yi wuy nañ ku mën a làmb lenn rek man moo ma neex ci Adama Diouf seetaan nan ko raw gadu seetaan naa ko tànk waaye dakaar laa xamee dëgg dëgg dëgg kan mooy Adama Diouf ndax ñii nga xamante ne yëpp xaw nañoo am doole tuuti njool tuuti ku ci nekk si ñoon dina fooye làmb mais ndax di nga doon champion moom loolu leneen la ñuy wax Adama Diouf nag est un grand champion par son d'esprit par sa grandeur et par vision kon gars yi bu nu yàkkamti dara ndax rendez-vous yi joxante un million cinq cent la waaye woo nañ mu dem un milliard ndax bëgg nañu Adama Diouf dootu fi tëgg benn dix million dootu fi tëgg leneen parce que xale yi yi nga xamante ne ñoom ñooy suñu ay rakk lamb ji dafa nekk métier te métier boo koy def daf la war a dundal tey dundal la suba dundal la gannaaw suba kon Adama ñu ngi lay ñaan

Sénégal continue de le drapeau CDAO, continue de le drapeau Union africaine bu continuer de dominer la lutte au niveau de la francophonie bénin bi au-delà de la lutte en tant que sport la lutte est un grand phénomène culturel c'est un phénomène de transformation sociétale que nous devons tous accompagner Lolu motax muy fi muy ci Ablaye Diom muy ci Thomas Production muy ci ñoom Eli Bikol muy ci ñoom Mamkor muy ci ñoom Mol en muy ci ñoom Kout gaa yëpp ñun ñëpp dañu war a bokk ndey ak baay promouvoir lamb ji ànd ci ak FM TV yi ànd ci ak communicatrices yi nga xamante ne ñoom ñooy mbayang ba suba ak gannaaw suba affaire yi mun a law ba Sénégal continuer na nekk miroir fii nag du lieu politique politique ba ñun dinañ ko continuer di ko def sunu ay ambition xam nañ ko. acte yi nga xamantene mom def ak population bi dinañ continuer parce que nous liñu comme ambition c'est de faire revenir le parti socialiste et en faire la première force politique et de l'incarner en tant que leader jeune de l'incarner en tant que sénégalais de l'incarner en tant qu'africain mais de l'incarner fièrement en tant que serreur que nous sommes de l'incarner en tant que des Sinsins, de sorte qu'au demain qu'on puisse faire ce que Senghor n'a pas fait, qu'on puisse faire ce que Abdou Diouf n'a pas fait, qu'on puisse faire ce que Wad n'a pas fait, qu'on puisse faire ce que Diomaye n'a pas fait, qu'on puisse faire ce que les autres ne feront pas, parce que le Sénégal continuera à avoir des dirigeants, et ces dirigeants-là méritent nous, nous méritons de l'incarner. Je vous remercie pour votre aimable attention. association yi nga xamé and nyom ñom ñom nyom ma ak jong nyom ah, ñom Ablaye Dione wa ñom bokku pas pass ak vraiment ñoom ñëpp ñoom bànn gis na mbir mi suñu grand Madou mbingan yow suñu miroir nga yal na la fi yalla bayyi yal na yalla tete la yàlla moom mooy xam li tax moy créer nit yow nak vecteur culturel nga li nga nek assumer nga ko sa and ak ñun dafa leer waye nak lamb ji cër bi nga ci am ci mbër yi loolu leer na yaa ngi koy matale looloo tax ñun ñu bëgg a ànd ak yow xuus jël jilaas jël Fimela jël département de Fatick jël Sénégal ànd ak yow ba pale loolu mooy li nga xamante ne noonu la ànde sama jigéen Adam Ba xaw ma ndax teral nga mbayang wala teraloo ko wante war nga faa du suuf jox ko lu bëree bëri vraiment je vous remercie yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax a baax a baax ñoo far nous sommes ensemble dégg nga jërëjëf jaajëfate merci beaucoup